fonctionnel nga ñëw nga gis ci biir bus bi fu fu ñu wane ni xale bu ndaw bi foofu la lakkee mu ni kon kii sama doom la te ñaari doomam la yu jigéen kenn ki am 21 ans kenn ki am 7 ans ñu jóge woon Kounoune di ñibbi Medina bi ñu dëkk man bi papa ji di expliquer fan yii yëpp maa ngi dégg histoire bi mais tey li ma ci gën a yëngal moom yëngaloon na ma depuis le premier jour mais léegi nii bi may ñëw ci yoon bi loolu gën ma koy masawu sénégalais yëpp nag. di ko commencer si le président de la République le président de tous les Sénégalais ku bëgg ak ku bañ c'est le président de la République du Sénégal ma koy masawu ci li nga xam ne moo xew mais di masawu Sénégalais yépp par rapport ak loolu mais di ko ñaawlu man en tant que jigéen en tant que ndaw loolu maa ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu mën a yem en tant que politique aussi mais en tant que représentant du peuple comme vous l'avez dit tout à l'heure le peuple c'est vrai que am naa coloration politique dama koy réclamer di ko revendiquer mais quand même je représente le peuple moo tax loolu noonu dama koy ñaawlu avec la dernière énergie pour wax ni sénégalais yi nañu delloosiwaat suñu xel gis nga bus yooyu ñuy yàq waxuma la président Macky Sall mais man mii nga xam ne tekkiwuma lu bëri sax dugguma ci bus yooyu c'est des sénégalais yoo xam ne ay góorgóorlu lañ dañuy jóge seen kër yi dem uti lu ñu dundali seen njaboot yi delluwaat seen kër yi ñii ñoo ngi doon dem di ñibbi seen kër ñii ñoo ngi doon dem di uti lu ñuy am ñooñu boo leen yàqalee muy borom tataay muy nit ya dugg ci biir après après c'est quoi c'est pour faire faire peur aux Sénégalais non attendez l'État restera fort loolu ñëpp xam nañ ko quel que soit Alpha que mu nekk ak le président Macky Sall su demee keneen day ñëw reste l'État restera l'État du Sénégal mais nit c'est c'est les hommes qui passent les institutions restent je pense que loolu ñëpp xam nañ ko kon le fait ñuy affaiblir suñu état suñu république je pense que defuñu ko le président de la république Macky Sall mais Sénégal ci boppam lañ koy def et ci biti boo jénnee nga dem ñëwaat di nga xam ne Sénégal am na benn respect boo xam ne les peuples jox nañ ko ko les nations jox nañ ko ko que mu nekk les grandes puissances sax am nañ respect boo xam ne jox nañ ko le Sénégal kon encore une fois ñun sénégalais nañu opposé wu na am adversité y a pas de souci ku nekk faral fu la neex yow bokkal Pastef kii na bokk réew mi kii bokk euh, AFP man ma bokk APR mais nañ ko défendre nga ñëw ci plateau yi. ñu toog ñu jàkkaarloo. débat d'idée ñu débat def débat d'idée ku nekk loo d'accord nga ni d'accord ma su fekkee ni nag dañ ma tooñ ma jàpp ni man yoon teg teg nañ ma loo xam ne du yoon ma dem gisi yoon mais day fekk ma respecté yoon aussi ba pare parce que balaa ngay dem di ko wóoluwul je pense que mënoo dem sax di fa revendiquer quoi que ce soit kon encore une fois nañu respecter suñu institution man c'est le message que je voulais lancer euh, en fait euh, début de mon propos pour que ma wax sénégalais yi nii surtout ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay ndaw il l'a dit tout à l'heure le parti Pastef ay ndaw ñoo fa nekk ils sont dans le digital et tout oui ils sont reconnus parce que am na ay wax yu tegginuwul yoo xam ne moo tax ñu reconnaître leen mais nous nous sommes dans le dans le digital depuis combien d'années on a fait trois ans dans l'opposition et notre président de parti et devenu président de la République ça c'est plus important que devenir député avec plus bien on a fait trois ans dans

ce qui était strictement avec le président avec Benno Sénégal mais on s'est retrouvé avec plus de 26 maires ça c'était deux mois après création de notre parti donc je pense que si on veut donner des statistiques il faut aller au fond de nos recherches surtout quand on, tout le monde nous écoute c'est pas fois même si le PDS a eu trois députés pendant il y avait une faible opposition mais cette fois-ci c'était face à au président Abdoulaye Wade mais aussi face à une opposition très dynamique avec les Moustapha Niasse le Benno Siggil Sénégal qui avait tout raflé en 2009 alors que le président Macky Sall s'est imposé avec la grâce de Dieu parce que suñu borom ku mu namm ni da ngay nekk dara su àdduna bi yëpp Sénégal gi yëpp booloo woon ne bëgguñu la yàlla def nee na maa coppati ci sama nguur jox buur yi ak président yi te loolu yaakaar naa ni chaque jour ñoo ngi koy gis kon nañu gën a rafetal surtout ñun ndaw ñi nga xam ni président Macky Sall il a déjà déclaré que ni du bokk kon kooku day dem defi leneen mais ñun ñi nga xam ne dañu war a continuer war a téye réew mi lan lañu war a ban comportement lañu war a am